fàtte mboole ndigal la nag ay sàkku la ak ñaan loola mooy dafa bëgg ñu xam ne jàkka ku fay ñëw ngir jaamu yàlla tax kon am nay teg mën a sàmmonteel kuy julli si war ngaa ñëw ci dal akuk tek ba def sag jaamu yàlla ba def say ñaan doxaan ndànk delluwaat sa kër kon nag nee na lépp luy coow ak yooxaloo ak noo ko mën di tudde donte ne ay ñaan ngay joor ca kaw loolu bëggoon na ñi koy def ñu dakkal ko ndax rawatina su jullee ba noppi moom sëriñ bi bay dellu këram ñoo ñu di def am ndiiraan topp ci ginnaaw daamar ji di daw ak di yoxo donte ne lañuy def yéene ju rafet lañ ci àndal ak i ñaan waaye loolu nee na mi ngi sàkku ci mbooleem ñi ko doon def ñu bàyyi ko ndax gënalu ko te ab taalibe nag lépp loo xam ne gënal sëriñ bi war na koy moytandiku ndaxte jooru ak yëkkati sa kàddu ci kanam kilifa alquran daf ko tere bu yàgg ci wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din kon nañ xam ne looluy ndigal li nañ ko bàyyi xel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 صدقنا محمد sunu حي على البلاد googu nga xamante moo bàyyiwoo ko ci sëriñ bi muy sàkku ci mboolem taalibe yi nga xamante ni dañ daan julli si te bu noppee ci jullee bay dellu këram ñu topp ci oto bi def am ndiiraan di yooxaloo ak di coow donte ne ay ñaan la ku ci nekk na ko fas ci xolam te bañ a yëkkati kàddu gi wala ngay topp ci oto bi ndax loolu lépp dëppoowut ak ay teggin yi nga xamante ni dis koy dimaale ci teggin yi kuy dem ci jàkka jaamu yàlla ak dal la àndal kon ñi daan def loolu nañ ko bàyyi te ñu ànd aku dal te sëriñ bi bu dikkee ba ni muy delloo kenn bañ a toppati ci otom bi ginnaaw nag dañuy dëgmal guddig yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom moom mu nga xamante ni diineem jim fi indi te mooy lislaam diine teggin la aku dal te mooy kilifa ak jullit yépp itam te sunu boroom tabarak wa taala xamle woon nu ñu war a ànde ak moom ci dal ak wormaal ko guddeem googu nag sëriñ bi wax na ci lu bari ndax nee na mooy guddi gi nga xam nente ni mooy far sikk sàkkay xol aku naafiq ci xol bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam àdduna booba la fi loolu jóge moo fi jële ab coona ñu daan def ay bàkkaar itam te daa yéeg ci asamaan di jéem a yëddu xibaar ya ca guddi googu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam feeñee àdduna ca lañ leen jële foofee ba mënatuñ loolee mu ne guddik mucc la guddik texe la guddik mbégte la guddi tono la ak bénéfice ak mbaax waaye guddi la goo xamante ne ku ko dundale nañ ko bëgge woon luy nemmet ak mbugal dana la ko jañal biha najaatu wal falaax maa sururi wan najaax biha rabaax wa salaax mu ne guddi la gu màgg ku ñu war maal la guddi la goo xamante ni kilifa gu ne war naa ànd ak mbooloom màggal ko mawliduhu muaddamu mubaaraku muxtaramu tanzimuhu yanxatimu ala dabi taqaddumi kon nag nan lañuy dundale guddi gàmm nañ ko dundale ci jàng alquranul karim ak jàng xasida nit ñu baax ñi rawatina xasida sëriñ bu mag bi ak ci sikkar ak julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak di def ay bernde ak di jokk ak bokk ak di jàngat jaar-jaari nit ñu baax ñi rawatina yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak nit ñu baax ñi toppaat ci ay jéegoom ginnaaw loolu lépp nag bala nga koy mën def da koy defee ci anam gi nga xamante ni moom lañ tudd léegi te ñu baax ñi ko daan dundal ñëpp daan ko dundale noonu moo tax sëriñ bi ne woon tanzimuhu bi sunnati yaquuduna lil jannati bi hisdiyaadul minnati li muxlisin muaddimi nee na ko ko màggal te jaare ko ci sunna mooy la nga cay def lépp sunna da koo digle woon muy alquran jaag jàng xasida yi nit ñu baax ñaak bernde yaag zikkar ak salaatu ala nabi yooyu yépp ku ko defee noonu nee na dana la mat ba tàbbal la aljanna te sa xéewal day dolleeku waaye nee na ka mën am lool nag mooy kuy sellal kuy def ngir jëm yàlla kon ku màggal guddi gàmmu deefu ko xisaab itam ëllëg yowmal qiyaama loolu la junj ci fa man yuazim mawlida nabiyina baabil xuda falaa yuxaasabu gada faxtariman wa addimi ku màggal guddi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam itam te defe ko ci anam googu ñu la waxee yaa ngi mel ne ku fekke woon xare badar ànd koog yonent bi aleyhi salaatu wasalaam fa man yuaddim mawlida xayril baraaya ahmada fa ka shahidin shahida badran bi xayri wahami waaye ñu xam nag nit a ngi di joxe alalam ci mooy yàlla ak kaweel ay caaxaan ak i neen comme na yéefare daan joxe seeni alal ak seeni bakkan ngir tasaare ak kéefër ak luy daani lislaam kon kuy joxe alalam nag ngir feeñal màggaay ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam yaa ngi mel ne ña daan joxe seeni alal ca xare yi lislaam yooyee yu mel ne xare yi badar ak yu mel ne xare yi xunayn ndax ku suufeel daraja yunenti bi alayhi salaam wasalaam suufeel nga xareem yooye muy badar ak xuneyn ak yamel ne moom te ku màggal yonent bi alayhi salaatu màggal nga xareem ya loola la sëriñ bi di wax ne fa kullu man anfaqa fi mawlidihi lmusarrifi musarrafi maalan bi gayri salafi walaw bi qadri dirhami fa innahu kaman xadar yowma xunaynin wa sabar wa yowma badrin wa nasar xayral wara mufahimi mu teg ca itam ne ku joxe ak naan ak ñam ci guddi gàmmu te def ko ngir yàlla dana am ay mbégte te du taseeg jenn lor du koy lor yowmal qiyaama fa kullu man qad xadara mawlida afdalil wara muaddiman mubashira bi sukkarin aw laxami fa innahu qad dafira bima yudiimu lbusara wala yulaaqi darara yowma ijtimaai lumami mu teg ca moom sëriñ bi ne ku waajal aw ñam berndeele ko ña koy jàngal wala ñay jàng ngir màggale ko guddik yonent bi alayhi salaam dana am ca yiw yiw ya nga xam ne gaa yu baax ya borom cër ya borom yitte ya yiw yañ amoon sunu borom dana ko ci tibbal wàllam fa man taaman hayya a liman lahu qad qaraa mubazilan fa xaba a xayraati ahlil himami mu teg ca ne ku teg am ndox ci kanamam ci kanam ñay jàng xasaa it xasaayit yi tagg yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nga fekk ñu koy jàng ci guddi gàmmu nga tànq am ndox teg ko ca seen kanam teg ko ca kanam ñay jàng ñay jàng yu mel ne jësbul xulub ak mawaahibu naafian ak am daa suñ ko tiimee ba jàng ba noppi ku naan ca ndox moomee yàlla dana la fegal pexam seytaane te ku naan ca ndox moomee itam yàlla dana leeral xolam te dana ko dundal te xol ba du texee di mukk te itam ku am lu mu bëgg mu barkeel wala mu loo xamante ni dafa bëgg mu yokk na xaar ba guddi gàmm mu tiim ko jàng lu mel ne jës bul ak mawaahibu naafi' ak muqaddamaat loolee mu tiimale njàngam ma dana yokk dana barkeel ci barkeb yonente bi alayhi salaatu wasalaam loolu lay wax ne wa man ala say in qara mawlida sayidil wara tabarrukan fa sa yara numuwahu bilfadgami wa in ala ma in quri mawlidu xayri lbashari fa surb bilmutahari yakuffu kayda almurgami yunawiru lqalba alsaraab min dalika alma bilmujaab walqalba yuxyi duuna aab wa an saqaain yaxtami te dundal guddi gàmmu dana aar ak njaboot ak i kër dana saafara xol ixyaau mawlidil basiir yaxmil iyaala wa duyuur fi fiihi sifaun li sudur li kulli haadin yantami kon nag ñu xam ne ku joxe ay naan ak ñam ci guddi gàmmu te def ko ngir yàlla dana am ay mbégte da taseeg jën ak lor kon nag yooyu yëpp di ay ngëneel yoo xamante ni war lañ koy bàyyi xel ci guddi gàmmu te luñ ci ciy def itam nag ñu def ko ngir jëm yàlla tabaraka wa taala te sellal ko ngir jëf jum ju doon bu dee ak jaamu yàlla ñaari sart la am ngir ñu nangu ko benn sart ba mooy na ko defee nañ la ko digle woon na ko def itam ngir jëm yàlla te dëppale ko sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon ñoo ngi ñaan kuy gàmm mu defee ko noonu ci jàng alquranul karim jàng xasida def ay bernde jokk ak bokk jàngat jaar-jaari nit ñu baax ñi loolu ku ko def te def ko ngir jëm yàlla lii ci sëriñ bi digg lépp da nga ko am yàlla nañu ko yàlla defal kon nag ñoo ngi dellu di baamtuwaat ndigal loolu sëriñ bi joxe woon ci nañ ànd ak dal buy génn ci jumaa ji bay dellu këram bu kenn toppati ci oto bi te bu fi kenn nekk di yooxaloo ko coow ak loo man di wax ak lu mu baax baax itam ndigal la mooy nañ ànd ak dal te bañ caa topp ndigal nag jëfe rek lañ ci xam xam wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu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 الحمد لله مدبر الأمور ومصرف الأقدار الفاعل لما يريد بمحض المشيئة والاختيار نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار ونشهد أن سيدنا محمد رسوله بنوره أشرقت الأنوار صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار وصحابته الكرام البررة الأخيار أما بعد فيا أيها الناس هذا شهركم ربيع الذي بدا فيه للوجود أكرم الشفيع فاعرفوا رحمكم الله شه... لشهركم هذا قدره واغتنموا بالعمل الصالح بركته وخيره wastaxyu min allahi an taasuuhu aw tuxaalifu amra fa innahu man calaykum fiihi binabiyikum alladi kuntum bihi afdala al umam wa sabaqtum bihi wa in taaxartum man salafa minhum wa taqaddam qaala taala kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas taamuruuna bilmacruufi wa tanhawna can ilmunkari wa tuuminuuna billah fa haada alchahru برز فيه للوجود نبي لولاه ما تحققت الحقائق ولا وجد شيء من الخلائق ولولا نوره ما أشرقت الأنوار ولا عبد الواحد القهار الحمد لله الذي أكرم آل البيت الشريف بالنسب الطيب الطاهر وحباهم بالحسب الواضح الظاهر والصلاة والسلام على سيدنا محمد الآمر الناهي بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أما بعد فيا عباد الله إن العاقل من التزم الوصية التي وصى بها سبحانه جميع عباده فقال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتخذوا التقوى مسلكا ومتجرا وعملا ليوم تجد فيه كل نفس ما عملت من خير مهضرا وتقوى الله متجر الفائزين وغاية من المقربين القائمين بأمر الله لا يفارقون الذين يتقربون إلى الله ويتعبدون لا يقطعهم عن مولاهم قاطع ولا يمنعهم من الجد في العبادة مانع تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون اللهم انفعنا بمحبتهم ومحبة ومحبة آل البيت الكرام والقيام بما يجب لهم من التعظيم والاحترام مع أن محبتهم فرض أكيد على الأعيان وشرط في صحة الإيمان يغفر الله لنا ولكم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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى وذكر النفعة الذكرى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 allahu akbar sami allahu liman hamidah salaamaaleykum